ak NSS ñu waroon ci dem ci yoon ñu wax nee nañ waxtaan ñoom ci seen bopp ñu ko mettre seen expert def seen évaluation wax nañ ñaata xam nañ ñaata lañu wara jox lolu bu ko joxee ñu réaliser suñu tissage bi. nag président Macky Sall xamné population Thiès ñu koy xaar ñu ngi toog diko xaar Thiès du pour Ibrahima Fall du pour ken pour population Thiès la pour la jeunesse de Thiès suñ ko réaliser jeunesse Thiès ñoo ci profiter y a des milliers d'emplois qu'on peut créer ici ils sont à portée de main marocain depuis 2015 nous avons commencé pour employer au moins 300 à 500 filles à Thiès ça c'est quelque chose bokkul nag filature ak tissage bi même bu faire ne euh, dafa am des difficultés mais nous nañu wut solution mais Nous ñu comme nous ñu def entreprise Nous amel nañu Nous amel nañu aussi ay bor mais ñu raconti ko. ñu mën a a mën a dox mën a liggéey. dara arrêté wul usine bi lu dul lu nañ bi ñu joxee SCS les partenaires yokk ci usine bi FTT tabax ko à 3 milliards. du Diouf ci boppam moo taxaw fii ne la capitaine de l' industrie vraiment c' est la SCS kon nañ leen jox Sotesca de luga et Sotesca de Kaolack Kaolack c' est un investissement de 41 milliards mais état mun ko woon dawal. il a fallu ñu jox ñu pour ñun ñuy investir dans bi jógee ci di dem créer beaucoup d'emplois former des travailleurs indi fa des machines extraordinaires. extraordinaire et je dirais que à Louga dugal nañ fa 180 machines benn machine bu c'est des machines à couture benn machine bu ça coûte 3 millions mais promoteur bi ñu jox Sotesca de Kaolack et de Louga jël na machine yooyu yóbbu ko Kaolack politique ko jaay ko ba fi mu ne boo demee salle vide mais loolu la mais ñun bu ñu ko joxoon ñun en tant que STS soxlaatuñu kenn nañu delloo suñu alal ñu démarrer usine bi récupérer tous ces travailleurs là qui font le Jakarta indi leen fi ñu liggéey ñun li ñuy wax du pour ñun parce que nous sommes à la retraite mais nous parlons pour les jeunes. état moo ñu plus de 7 milliards war ñu ko jox depuis 3 ans 4 ans ñuy daw ci seen ginnaaw mënuñu jot ñaari dërëm Macky Sall yëg ko parce que ñun ñii amul autorité bu ñu rencontré Quand hein. coton baa ngi nii xoolal la lumière là kii dañ ko dañ ko def solaire mais fi mu ne courant suba les trois équipes vont tourner 6 heures 2 heures 2 heures 10 heures et euh, euh, quart de nuit les travailleurs vont tourner ba pare gis seen bopp jot on va payer les l'IPRES les arrières de salaire la caisse sécurité sociale on a calculé les dettes mais mënuñu fay ñaari dërëm parce que l'État des promesses non tenues